caisse des dépôts et de consignation daje nañ xaatim ab lëkkaloo moom ak université bu ndakaaru tey ci suba muy ab lëkkaloo boo xam ne day tax ñu am beneen taxawaay ci njàng mu kawe mi ci ay fan yu yaatu lu jëm ci xamal ndaw ñi tolluwaay njàng mi waaye tamit dugal yu yees ci njàng mi ki jiite caisse des dépôts et de consignation di ñëwaat ci dayob lëkkaloo boobu ñun CDC ñu am cawarte tey bëgg lëkkaloo ñoom ci ay projet yoo xam ni lépp luñ ci gis mooy Sénégal ak sénégal yi moo xam ci formation la moo xam ci encadrement pédagogique walla sax tette ñu walla dimbali ñu ci placement yi nga xam dañ koy def alal bi nga xam ne askan wi moo ñu ko dénk loolu yépp waxtaan naa seex le recteur ñu bëgg tënk ko si benn convention boo xam ni incha allahu comme ni ma ko waxee Sénégal yëpp dinañ gis seen bopp may gërëm recteur di gërëm waa université yëpp di leen wax ni de ñu ngi ñaan yàlla yàlla barkeel convention bi nga xam ni signé nañ ko tey yàlla dimbaluñu parce que njëriñ dong mën naa ci gis en tout cas maa leen di gërëm di leen sant di leen ni waa CDC ñun de. suñu wàllu bopp dinañ def lépp lu ñu mën ngir ay projet judd ci convention bi incha allah encore une fois merci infiniment au recteur jërë ngeen jëf jiital rectorat bu UCAD tamit daal dina tamit addu ci li am tey ay programme yu mucc ayib lañu pour tàggat ndaw yi te loolu université Cheikh Anta Diop mu ngi si yëngatu bu baax si domaine yu yàgg yi domaine traditionnel wala domaine yi nga xam ñoo gën a yees muy domaine yu moderne technologie de pointe am na ay ay ay xarala expertise boo xamante ni àdduna euh, bi yëpp reconnaître nañ ko ñaar bi mooy mbirum recherche di gëstu loolu tamit suñu chercheurs yi ñu si def liggéey bu am solo ñetteel bi mooy engagement citoyen parce que université tamit dañ si taamu ñu bañ di tëju rek di jàngalee xale bu ñu génnee lijjanteetuñu xale li ñuy def dañoo bëgg aussi université yi di xool société yi lan mooy seen bëgg-bëgg bu ko defee tàggat bi ñu tàggat xale yi dina gën a jàppandi ndax xale yi bu leen tàggatee den tàggat pour ñuy toog euh, euh, régler problème société bi donc service à la communauté boobu lu am solo la convention bi ñuy signé tey nag dafay ëmb ñetti mbir yooyu benn bi mooy formation parce que formation ñun dañ yaakaar ni formation xale yi la bachelier yi la formation am na formation initiale mooy tàggat bi ñuy tàggat ndaw ñi mais am na formation continue ndax formation du jeex ñu bëri yaakaar ne bu ñu amee seen diplôme formation jeex na formation du mës a jeex ndax booy liggéey fenn da ngay soxla li ñuy wax développement personnel dangay soxla formation boo xam ne dafay continuer ndax mbir boo si yëngatu euh, euh, fi nga fi nga si toll woon bi nga am sa diplôme mbir mi du toll foofu rek booy jàng mécanique ñëpp xam na ni ñi leen jàng mécanique année soixante-dix ak ñi jàng mécanique léegi li ñuy jàng nekkul domaine yëpp noonu la demee médecine tamit même chose boo jàngoon médecine année 60 ak léegi li ñuy jàngale médecine nekkul benn euh, ba tax na boo génnee pour nga gën a mën a am sa compétence fi nga liggéeyee dafa soxla li ñuy wax développement personnel te loolu fas na yéene accompagner si bu baax a baax a baax waa CDC beneen mbir bi nga xamante ni partenariat bi ëmb na ko muy wàllu gëstu ak conseil ndaxte CDC ñëpp xam nañ ni dafay gérer xaalisu jàmbur. xaalis jàmbur nag boo koy gérer comme sa xaalis da ngay ñaan yàlla muy yokk te loolu nag am na ay technique yoo xamante ne boo ko defee xaalis bi ngay gérer xëy na bu yàqu bu wàññeekuwul bu yokkuwul tamit du wàññeeku loolu wax ay placement financier loolu nag am na si ay programme yu bëri yu wax actuariat finance ak yeneen yu mel noonu yoo xamante ni na tax placement yooyu ñu bëgg gën a jàppandi euh, li topp nag mooy service à la communauté loolu nag yaakaar naa dafay dem si ñaari côté yi parce que CDC Euh, bëgg nañu ñu jàppale suñu étudiants yi parce que ñu bëgg ñu ngi nekk di tabax loo xamante ne lu am solo la pour jàppale ndaw ñi pour que bu ñu génnee mën a am xëy si lu gën a yomb te comme que CDC ñoom li yëngu si mbir moomu bëgg nañu ñëw jàppale ñu. rax si dool yi am nañu fondation bëgg nañu képp ku jaar UCAD nga ñëw jàppale si te gannaaw DG UCAD da euh, jaar euh, ñu ngi am yaakaar ne tamit dañoo jàppale si mbir yooyu donc daal convention bi ëmb na yu bëree bëri bëri loolu mooy lu ko laal. mais am na ay projets yu précis yoo xam ne ñu ngi si liggéey mënuñu ko euh, euh, biral léegi ndaxte il faut ko ñu gën ko togg ba mu ñor euh, bu ñoree rek bu soobee yàlla dinañ ko wax communauté bi bu ko defee waa université xam ko étudiants yi xam ko enseignants yi xam ko personnel bi xam ko société bi tamit xam ko vraiment ñu ngi gërëm DG encore une fois di ko feddali sunu sunu kóllëre di ko gërëm di ko sant pour gane si ba mu ñu gane si te am yaakaar ni convention bi dinañ gis jeexital bi du yàgg dara ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant